déedéet ñëpp sa nangu nañ mais dafa am ñu ne. ñëpp nangu nañ mais dafa am ñu ne ne président Macky Sall njëkk a ñàkk ba mu am une semaine. waaw ñu xool bu fekkente ni tout va bien. Ah. ñu soog a ñàkk ñeneen ñi dafa am ñu wax loolu. ah euh, euh, bi bi bi ndax naa ne de moo la jàngal ne ñuy raxasoo. saa <laughs> saa lool moo la jàngal moo la jàngal ne raxasoo. moo ko wane. ah waaw bu ñëkk ñëwee nag maa ngi Mansour Mbaye nan njëkk a ñàkk ba noppi moom it mu wane. ah ma comme moo jiite woon ndax suba est-ce que du jiite ñàkk mi. man ah, de nangu na man daal bi xam nga ginnaaw ñàkk moom moo gën a saf te ay bal la géwél la dëkku bal yi nun leen nun dëkkee ñàkk ba noppi waaye moom it moom it na ñàkku ministre yi ñàkku directeur société yi ñàkku dégg nga directeur société. ñii ñii ñu ngi ci kaat yi. la ñuy def ci napp yi. loo loo loo loo loo loo nangu naa ko. nekk sa waa ji bëggaat. waaw mais waaw waaw mais. sa waa ji mais sa waa ji gëm sa bopp. musoo jël kàddu gi taw waaw gëm sa bopp kay. gëm sa bopp mi wër réew mi di lamb gerte yi. waaw. di dem ci di dem ci di dem ci nappkat yi ñii tamit te yéene na leen ak wér gëm sa bopp it na ñàkk. foog mu bokk ci ñi hmm? njëkk a ñàkku nag. waaw Youssou Ndour ñàkku moom waa waaw surtout Youssou. moom it na ñàkku nag. dëgg la. ndax moo moo moo fi def huit kilos la xaw ma lan musique. huit kilos musique. di di di bigal xol yi moom it na ñàkku. ba pare ba sax fekkee ko ci boole mënu ci ñàkk. waaw Racine Talla la ñàkku Racine Talla na ñàkku. Racine Talla. na ñàkku. ak kan. pere ngi lim de. na na <laughs> Alaaji Alaaji Ndiaye na ñàkku. Alaaji Ndiaye na ñàkku deux heures. Mbackiyou Faye Touba TV na ñàkku. Mbackiyou Faye. <laughs> Euh, Alioune Tour ngal doole la euh, kii lamp na ñàkku. dëgg la ak kan. ñëpp xam kii mais ñàkku lu muy wàññi. waaw waaw na ñëpp ñàkku na ñëpp ñàkku. waaw waaye na président de saa waaye nag waaye nag na ñàkku ba pare li gars yi maa ngi nii ñàkku leen ba pare la toogoon na ni raxasoo. <laughs> jërëjëf May. waaw. jërëjëf May. <laughs> papa papa ngi lim xam nga li lan la may fàttali ne armée bi kuñ ci tudd da ngay dee balu booy bi dugg ci armée bi booy bi ne Pa Moussa doom bal ma jot la bal bi pa bi ne ko eh yow Aliou eh sa Amar ne fi sa baay ne fi sa baay nekk fi nga may waaye bàyyi mbay mi ngi lim. tën na ñëpp.